direction bi ñu dénk wàllu protection sociale amal na ay jéego yu am solo waaye qualité njàng meeg njàngale mi ak xale yi teel a bàyyi jàng doon na ay mbir yu ñu war a bàyyi xel fitna exploitation ak toroxal yi ñuy teg ci xale yi tamit doon na beneen risque boo xam ne ñoom dañu koy dund. lu gën a am solo mooy mooy ni que euh, nguur bi mu am euh, taxawaay boo xam ne dina fexe ba loolu mu gën ko wàññi mu mun ko xeex. te loolu taxawaay boobu ak engagement ba gis nañ ni ko am nañ ko parce que lu lu tax régime bi lu tax président Macky Sall jël protection sociale daf ko axe stratégique ci plan Sénégal émergent rek wone na ni ko loolu lu ñu soxal la loo xam ne dañ ko jox gëdd. ñu bari ci ñi amee laago dañuy ñaawlu yéexaay bi ñu nemmeeku ci joxe carte d'égalité des chances yi te moo ne lu ëpp juróom benn fukk ak ñeenti junniy carte joxe nañu ko ba noppi. carte yi fi mu nekk nii ñun base de données bi ñu mujj jot bi am nañu 64 700 et quelques ñoo xam ne am nañ carte d'égalité des chances bu ñuy dem 2016 bi ñu koy bi ñu koy ma ñu ngi nekkoon ci mille 000 vingt cinq 000 cartes yooyu. président de la république Macky Sall dafa new ñoom ñëpp nañ la jox bourse dugaloon nañ seen leen ci programme bu depuis boobu. fexe ba askan wi jotale ci service de santé yi ak sociaux de base yi loole nekk na moo ne priorité ci politique nationale ngir sukkali Sénégal waaye seetlu bi mooy rëq-rëq yi ak li leen di xaar tamit bari na loolu.